je vous remercie jëf jërëjëf Imam Dramé sëñ Cheikh Thioro ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu mbooleem waa Touba waa Mbacké euh, mai 1968 Sénégal yëngu woon na loolu 1968 yëngu-yëngu boo xam ne.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 ñun militaires yi jël nañ ci say loxo nguuru Sénégal 1968 bataaxal boobu général Jean Alfred jàllo di xelal président Léopold Sédar Senghor lan la war a def pour jàmm dikkaat ci atum 1968 boobu ci Sénégal ci xalaat yi mu ko doon xelal général Jean Alfred Diallo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 Euh, bu bu trois heures jotee suba altine trois heures dinañ séddale fu nekk spécimen Diomaye président donc séddale spécimen Diomaye président maanaam wëyal daal suñu campagne bi ngir askan wi euh, gën a ràññee li nga xam ne mooy bulletin Diomaye Bassirou jomaay Diakhar Faye bi nga xam ne moom la ñu war dugal ci mbañ gàcce bi ci ci urne bi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 ñaari xeetu programme la ñu am képp kuy doomu Sénégal ku amal programme pour bañ bu mu jàmm ñun dinañ la fekk si ñun dinañ la dooleel dinañ woo suñu ay membres suñu ay militants suñu ay sympathisants askanu Sénégal yëpp ñu ànd fa. waaye itam dinañ amal ñun suñu programme mu bopp muy wéyal suñu campagne muy wax ak askan wi mobiliser leen ndaxte élection day am jërë ngeen jëf. merci beaucoup euh, di gërëm. Euh, ñëpp damay dellu siwaat ci gii une minute de silence yi mu def noonu